ministre de l'intérieur bi di Jean-Baptiste Tine moom nag mu ngay daal di tontu rek maire bu Colobane ci li nga xamante ne si nag moo di circulaire bi loolee nag daal nay daal di jox ab polémique ca boobu la circulaire nga xamante ne si sax nag daal nay daal di waral ay déguerpissement yu bëri rek ci marché yi autorité yi nag ku ci nekk rek di ci àddu ba tax nag ginnaaw kàddu ya nga xamante ne si nag maire bu Colobane daan na koy daal di yëkkati mu nekk Abdou Aziz Paye nekk maire bu Colobane doon indexé ki nga xamante ne si nag moo di le ministre de l' intérieur ba tax nag nga xam ne nag moo di le ministre de l' intérieur di Jean Baptiste Tine moom moomee nag mu ngay daal di dégager ay responsabilités. moom ministre de l'intérieur bi nag di xamle c'est la première fois que rek muy gis maire ba nga xamante ni si nag circulaire bi di moom lañ ko daal di jagleel moom moomee nag moom mu koy daal di utiliser di xamle sax ne que euh, ministre de l'intérieur moo ko daal di chargé nag mu daal di def loolu. ba tax moom ministre de l' intérieur bi nag mu ngay daal di xamle suggéré wul dara ñi nga xamante ne si nag moo di euh, mairie ndax nag euh, moom mais daal nay daal di xamle ce qu'on appelle li nga xamante ne si nag moo di des pouvoirs déconcentrés et pouvoirs décentralisés. nekk noonu it muy xamle rek ni circulaire am daf ko daal di adressé aux autorités administratives wante it muy laajte ndax am na problème bu am au niveau de Rufisque bu amee it bëriwul ndax nag loolee. dañ ko daal di encadré rek ba mu daal di jaar yoon ba tax moom moomee nag jàpp nii rek xanaa ji dafa am yeneen i problème ya nga xamante ne si nag moo daal di am foofee ca Colobane ñëpp rek bëgg ko daal di sippi ca mbir yooyee loole nag moom ministre bi di Jean Baptiste Tine dool daal ne daal di xamle loolee nag nekkul benn yoon lu baax wala sax nag lu jaax yoon.